xelam demul ci ville de parce que su nekkee loolu mooy le cas xanaa ñu ñaanal ko rek yàlla may ko xolumul parce que lu war a dogal le 23 janvier ñëpp xam nañ ko mooy ñoo fi toog pour juróomi at te fas nag toog fii te liggéeyal askan wi parce que loolu mooy suñu warugar moo tax ñu bëgg a wax dañ leen bàyyi wax wante ñun li suñu warugar xam nañ ko te dañ ci taxaw bu baax moo tax mbokk yi mais dalay sa xel dama ne xam nañ lan la suñu mission xam nañ lan la ñu yónnee ci ay sañ-sañ xuloo taxuñu jóg xeex pour ñu xeex foog ñu nekk ñaar te man Barthélémy Dias dama doon xeex xeex naa ànd ci ak Yewwi Askan Wi ba yàlla may ci ndam

mais yëgal askan wi lu ma ci campagne bi bañ may installé tamit ma joxoon ko tamit dugalaat fii mooy dama waxoon dinaa sàkku audience ci président de la république audience bi nag dugal naa ko mu ngi nii ba bëgg nag leeral wax ci Barthélémy Dias soxlawul gis Macky Sall loolu lu wax yàlla amul amul amul askan Dakar benn intérêt le maire de Dakar dama le président de la république pour nous le Dakar. Dakar Watan de Dakar République. y a le président de la république le nangu audience bi am tamit le président de la république régler problème bu ngeen xam ne ni mairie Dakar am na ko te mu nekk ay problème ngeen xam ne ni lépp politique moo tax problème yooyu mairie Dakar di ko di ko dund donc nag mbokk yi laa bëggoon wax audience boobu nag ba bëggoon wax ci leer laata ñu dem ci audience boobu dinañ am tamit benn communiqué bu ñuy baaxee askan wi parce que

nekkul plateau priorité bi nekkul Médina dama ne am na fi ay commune seen salaire sax mënuñu ko fay balaa ngay tudd plateau te maa ngi nuyu di ziar mat su suma doomu ndey da maire Alioune balaa ngay tudd Médina maa ngi yow passage nuyu le maire de la Médina na nga tudd Cambérène na tudd Grand Yoff tudd Parcelles Assainies tuddal Dakar waxal ko te ku bëgg a Dakar da ngay ak dal da ngay ànd ak yéene da ngay ànd tamit ak cofeel ci askanu Dakar ak ci Dakar day nag ku bëgg a Dakar ba ci def nag par par yow ak mbiru politique wax ci te am yaakaar ne que président de la République dina xam fu may fi maire xam na maire yàlla dogal na tamit mu fi ministre de l'intérieur xam baax Dakar premier ministre xam bu baax Dakar xam na difficulté Dakar urgence Dakar donc audience euh, j'espère que dinañ ci jot te am tamit yaakaar suñ ci Dakar euh, am euh, en tant que commune en tant que ville d'une une meilleure collaboration avec les développements de l'État dans l'intérêt général de la population je may yi yu posé ba parce que wax naa leen ko objectifs pour les 100 premiers jours nous avons un objectif pour les 18 premiers mois. Nous avons un objectif pour le mandat. 100 premiers jours du le 3 juin, les hommes, un président des 100 premiers jours. Le 3 juin, nous avons l'année le l'IGI, nous avons excès de Et nous avons une liste de en cours. ñu ngi commencé di pare lii di armel yi nekk Yoff ak Bétani te su ngeen demee actuellement Yoff ci parking bi di ngeen fa gis ay pare am nañ fa lu ëpp demi hectare bu pare lu fa nekk lu fas yéene nag liggéeyal euh, liggéey plus ou yi te tamit euh, ormal mbokk yi fi nekkoon te yàlla bégal ñu jiitu ñu. Massacre. Euh, et le Rougo Arabe, moi, il y a un gourou de ce que je veux dire, c'est une de notre truc, de notre pote, lui, il veut de place à nous, et puis, quand même, il veut améliorer le cadre de vie de ces lieux qui restent des lieux fréquentés par le public. Et mon propre public, qui est celui du cadre de vie. Bien, est-ce que, tout dans la même veine, dans le cadre des centres de lecture,

doomu accident bi tamit mu ci gis rek boppam donc travaux yi ñu ngi avancé ñu ngi tamit ci mbiru réhabilitation mooy seen ñu nekk ci ville de Dakar mën naa ci lim CM Lamine Gueye mën naa ci lim CM Assène fii doon muy accélérateur mën naa ci lim CM Ousmane Koumba Paté mën naa lim le CM Blaise Diagne le CM Mame Sëriñ Cheikh Awa Balla Mbacké bloc scientifique bu Point E Sëriñ ak si Malick Sëriñ Martin King Sëriñ Abdoulaye Maturel Diop ak Sëriñ John Fitzgerald Kennedy te ni nga ko gisee ci jàppoo bi travaux yëpp démarré na di ngeen fi gis ay école yu bëri xale yu fi demee sax jàngi école yu ay toilettes fu ñuy mën a dem pour mën a soulager wu Donc, bonjour, Gourou, au sud de je remets le coup Sénégal, le coup Dakar. sur nous avons école, nous devons au moins école dans des conditions décentes et acceptables. Nous avons appelé le projet d'aménagement hydraulique pour passer de rétention au Grand Yoff. Nous avons fait un partenaire pour le boucler le financement. Dans cette minute, nous avons assez foncière de 7 hectares